dañuy yëkkati kàddu ay euh, ngërmande ci ñi nga xam ni di ñu commencé ba léegi euh, jaar nañ fi euh, commencé ko ci Cheikh Bachir Ndaw bi nga xam ni comme li may faral di wax wax naa ko sànq. ku ñu jàppale la ci ci mbir mi di ñu jox ay conseil ak képp koo xam ni ku baax koo xam ni gis na ni war na mën a bokk ci programme bi bu Buy ki mu ngi koy def ñu koy remercier bu baax a baax ci teewaayam teel ñëw na depuis 9 heures donc toog ba heure bi donc ñu ngi koy remercier ñi ngi remercier aussi suñu doomu baay Cheikh wadda nekk muqaddamu Baye Niass nekk aussi ambassadeur du Baye Networking en Gambie ba ñu waxee ak moom ci Baye Networking bi rek dafa ne lii moom ñun ñoo koy taxawal te képp ku ñu xam dinañ ko wax Baye Networking te di ngeen ñëw Gambie ñu ñu ñu ñu yaatal ko bu la def na fi discours bu am solo ñu remercier ko bu baax a baax a baax di remercier aussi sunu sëriñ Cheikh Siraji Diine Ibrahima Niass wax na ko sànq moom li ñu takkoo d'abord mooy Baye international bi nga xam ni Cheikh Bachir taxawoon na ko waaye boole ak moom dès le mu nga xam lépp lu ñu soxla ci Medina Baye mi ngi koy mi ngi koy def di ñu jàppale waaye itam bi ñu taxawalee bëgg defar Baye Net bi ñu fàttari rek mbokk mbokk yi si yàlla que Baye Net bi dafa am ñu bëri ñu jàpp ki ci njëkk te di ma gannaaw bi ma liwee ñoom Cheikh ak Cheikh Siraji yi ci njëkk mooy papa Cheikh Ibrahima Niass radiallahu taala anhu ak suñu sëriñ mu Cheikh Mouhamadul Amin Ibrahima Niass li nga xam ni moom dafa def bàyyi nekkuwa ki yëfam wax na ni mi ngi ànd ak ñun mi ngi sunu kanam mi ngi suñu gannaaw mi ngi suñu ndeyjoor mi ngi suñu càmmooñ nañu persévérer persévérer vous incha allah vous aurez gain de loolu sunu sëriñ moom moo ñu ko wax waaye ñoom tamit bi ñu ñëwee jàpp ci sunu Mawla sunu sëriñ xalif général dafa ñëw moom continuer liggéey boobu noonu ñaanal ñu ci lu bëri ba nga tax na même bi ñuy signé semaine bi en fait un mois dañoo signé benn convention ak génération Salih génération Salih li muy def mooy accompagner daara yi un talibé un métier. ku ndongo daara bu wàcc am nga métier ka nga nekk informaticien ka nga nekk euh, loolu mënti doon banquier lu mënti doon parce que daara ki fa jàng moom ci boppam dafa war a nekk koo xam ni tey dafa nekk war a nekk cadre parce que Sénégal dafa am lu bëri lu ñuy fàtte tout le temps dañuy wax enseignement dañuy wax métier mais toujours dañuy fàtte daara mais ñun bi ñu xamee ni ñun gis nañ ni daara dañ ko war a jàppale ñu amoon ci mbébét ci bàyyi networking bi avec le programme Rahma Fall gis koo xam ne jiitu nañu si muy génération Salih lañoo ne ñun dañuy jël suñu idée dugal ko ci génération Salih mu ne suy def programme ub war a dugg Kaolack ci bàyyi networking la koy jaarale ñu dem ba toog ci roonu sëriñ bi mu ñu signé ci kanamam ba tey am nañ cent jeunes yoo xam ni tey ci Medina Baye wane leen identifié pour defar leen ay formation en partenariat génération Salih ak ak 3FPT ak d'autres programmes comme Perform yoo xam ne ñi ngi fi pour que suba daara yooyu noonu xale yi ku nekk am métier ñii nekk ay développeur ndax suñu nee développeur tey jamono jii ñuy demi moom mooy les réalité virtuelles mooy métavers métavers ku ko xam mooy mooy casque yi nga xam da nga koy sol mu mel ne yaa ngi dund réalité bi fii nii waaye sëñ bi problème am na Cheikh Boucar Cheikh Bachir sang cher problème am na problème bi mooy lan ñun fekkee ñun anticiper wuñu ñun africain yi sur la réalité virtuelle africaine dañoo nar a jël suñu histoire yépp changé ko modéliser waat ko bindaat yeneen dugalaataluñu ko ci biir casque yooyu suñu doom yeeg ñeneen ñëpp di ko seetaan ñu jàpp loolu mooy réalité moo tax dañoo am benn défi bu mag boo xam ne ñi ngi koy wax suñu mbokku taalibe yi nga xam ne ay développeur lañ ñi nga xam ne dañuy rëj rëjloo ci technologie moment bii nii suñu ratee histoire de réécrire l'histoire de l'Afrique dans le vrai sens réalité virtuelle boobu noonu Afrique dañ dafay sera rayée de la carte virtuelle te loolu am na liggéey boo xam ni Cheikh Boucar mi ngi ciy def lu am solo mooy l'histoire générale de la Fayda donc loolu ñi ngi ñaan yàlla ci ndaw yi nga xam ne ñi ngi jaar ci programme yooyu noonu ñoom ñu mën a ko approprier wu pour que ñu mën a avancé donc loolu sëriñ bi taxawal nañ ko ci kanamam ñu signé ko donc ñi ngi koy ñi ngi remercier sunu sunu kilifa yooyu ñi ngi remercier aussi wax nañ ko sànq nekku fi woon ci gannaawam muy sang baraham ñoo taxaw jàkkaarloo parce que euh, parcelle laa dëkk mais fu mu ko soxlawee bureau laay dem tool fekk ko fa ñu gis ni ñun ci li ñu ne xamee ko ci Cheikh Bachir fële ca Kër Massar mu nekk ca ay complexe ñëw xamee ko Cheikh Oumar Diop ak ñoom Cheikh Aziz ak ñoom ñëpp moom si moom lañ ko ko fa fekk ba pare. sérieux entrepreneurs la waxuñu ko si présentation bi. serial entrepreneur na mooy koo xam ni da ngay créer di créer di créer entreprise waaye li gën a intéressant ci créer créer mooy da ngay jàppale ñoo xam tam dañuy créer jiwaat moo tax ñun by networking dañu dañu daf ñuy yombalal liggéey bi que képp koo xam ni créer nga da ngay soxla emploi da ngay soxla ressources humaines moo tax dërëm bi génnul gaal gi nañu góor góorlu ci dem ci loolu nga xam ni dañuy réseauté waat sunu biir ñi ngi remercier suñuy sëriñ suñuy sunu sunuy doomu sëriñ ñu nga xam ni si biir ASCOFAM la ne wax gis nañ fi Seyda Khadija euh, Baraham Diop ñoom Seyda Zara bu sax maay ñi ngi fa ñoom Seyda Asmaaw ñi ngi jëflanteeg ñun ci lu bari te ñoom tam am ni ay GIE donc nga gis ni kon écosystème bi nga xam ne ñi ngi ci ñun fii ñun si biir bi Baay wër nañ ko mën a capitaliser bu baax di remercier Seyda Awa kebe lu tax ma koy remercier aussi temps yi Taïba dafa amoon inondation ñu wax ñu ko moom ci boppam ne dañoo bëggoon bàyyi networking def ci dara li may faral di wax rek ñun loo xalaat rek ñu ne ko yow yaa koy jiite ñu ne ko kon campagne boobu yow yaa koy jiite ci programme Rahma Fën bi nga xam ni c'est le programme social du Baye Networking Rahma Fall la tudd am na ñu fa nekk ay ay sociologue ki ñu doon ñu waxal léegi di Dibor ne dañ ko ñaan yàlla mu nekk meilleur sociologue sëñ bi ku jël mémoire am de de de maîtrise de de de de master am sujet bu la neex nga mën ko jël nga jël le cadre du by networking soutenir ko dem ca université tey actuellement université Cheikh Anta Diop turu by networking mi ngi fa donc loolu dañ koy dañ koy sant. donc loolu initiative bu mag la loo xam ni tey donc wër nañ mën a jàppalante te moom moo jiite Rahma Fën boobu nga xam ni problème su amee dañuy toog ñu càmbar ko actuellement ak ñoom association Mame Astou Diankha ak ñeneen ñi ngi réfléchir naka lañu mën a amee jamaa bu mag boo xam ni social la ñu dajale ko ñun ñëpp ensemble ndaxte l'union fait la force li ma mën man am keneen ku mën ki ko mën suñ ko boolee day day fort donc loolu ñi ngi ciy woo ñëpp ne nañ gëm loolu ñi ngi nuyu tamit euh, waa Fonds dina Baye ñu ngi lay ziar yaa seen ñu ngi lay ziar lu bëri gis na gis na ci ci ci jotaay bi di tamit nuyu waa jamiatu ansaaru diin nga xam ni sëñ bi pour information suba Cheikh Mounamina dina ñëw fii dajale nañ wax nañ ko si suba dajale nañ bépp initiative te ñi ngi koy waxaat fii di di convoquer ñëpp suba sur le CEMIF mooy le cadre de mutualisation des initiatives de la fayda dafa am document boo xam ne dama ko tënkoon il y ans def ci ay gëstu ba proposer leen ko ñu ne nag ñun fii ci événement bi dañ koy lancer donc suba Baye international dina fi ne euh, euh, comment dire toolu Baye waa maam Assou Diankha tout les organisations yoo xam ne tey dañuy yëngut ci pays bi dinañ am benn conseil boo xam ne dañu fay daje di waxtaan chaque trois mois di xool lan la ñu war a mën a def Médina suñu jàppee ni environnement la ñu war a def ñu xool association yi nga xam ñoom ñëpp dañoo lëkkaloo ci environnement ñu ne leen boole leen seen doole ngeen yàkkal ko ngeen yàkkal ko pays bi donc loolu suba incha allah dinañ ko def waaye ci matin bi sëñ bi bëgg nañ sa entrepreneur yëpp ci ci ci ci sa ci sa ci sa ñu ñëw fekkee événement wu matin bi nga xam ni c'est de l'entrepreneuriat pur et dur suba dinañ toog fii ci salle bi képp koo xam ni tey am nga idée de projet xamoo noo koy defee wala am nga xaalis waaye xamoo noo koy noo koy defee ci biir projet wala amoo idée sax soo ñëwee fii wala ki nga xam ni mi ngi ndekk ci entreprise waaye soxla ay conseil suba ci ci ci ci béréb bii nii fii ñu toog ay ay boroom xam-xam si si seen domaine entrepreneuriat ñoo ñëw nar a ñëw toog fii ñoo xam ni am na si ñoo xam ni sax bokk bokkuñu si ci kër gi mais dañoo mooy fu war a itam bàyyi networking dafa yaatal yaatal donc ñoom invité nañ leen ñu ñëw dañuy wax retour d'expérience wolof Njaay day wax ku la jiitu si lëndëm moo lay wax fooy teg sa tànk donc ñooñu dinañ ñëw suba waxtaan fii nii ci lan mooy njariñu entrepreneuriat waaye aussi maa ngi koy wax sànq dafa am ay ndaw yoo xam ne depuis démb ñi ngi tëju ñi ngi lëlu ay développeurs su la supervision de Lindor am ni moom mooy yore Wintech dañ leen poser ay question problématiques sur faydu bi ak ay applications loo xam dañ ko doon liggéey pendant six mois en quarante huit heures démb dem leen yërëm sax ñi ngi ñi ngi ñi ngi ci bureau tëju di développer te bëgg nañ incha allah aussi si li ñuy développer plateforme histoire général de la fayda bi ñu terminer ko fi ñu ngi ci bëgg nañ aussi suñu paree application boo xam ni ñun ñëpp jaratul ñuy laajte kan moo xam diw kan moo kan moo xam menuisier xam kan moo kan moo xam comptable kan moo xam lii da ngay dugg ci application bi rek bind recherche avocat mu bindal la génneel la. ak taalibe Baay yëpp yi nga xam ne ay avocat yi nga war a mën a jokkoo ak ak ñoom donc ñoom ñi ngi ñi ngi liggéey lool donc Cheikh Boucar ñu ngi lay gërëm di la di la di la remercier ndaxte fii ñu ko woo nii woowaat nañ ko fi plusieurs fois mais en ligne saa ñu ko woowee day jël temps wam waxtaanal ñu te lépp lu ñuy waxtaanal njariñ la te kon ñun am nañ ay soutien yu yu yu mag ay ambassadeur du Baye networking yu mag yoo xam ni ñi ngi fi donc loolu ay kàddu ngërmande loo xam ni mënuñ si woon ñàkk gannaaw kalaama yi nga xam ni génn ngeen ko fi tamit motiver ñu si lu bari wane ni mission bi li ñuy faral di wax mooy ñun ñëpp dañuy dañ poser suñu question bàyyi lan lañuy ñuy doyee Kossy nag Kossy man xam naa ni man su ma woon léegi dama demal bàyyi Kossy day metti ab Samb mi suñ ko newoon ne ko demal bay koosi day metti waaye notaire la cabinet notaire la nekk moom moom bayam koosi ci notaire yàlla war a nekk dégg ngeen ma gaay ki nga xam ni dafay jàngale nekk professeur kooseem ci ci Médina ci ci pays bi moom mooy li muy jàngale sunu moqadam yi ñoom seen mission ñu ngi ñu koy defal romb nañ ko ñu ngi def tam ci ci wàllum économie waaye ñun ñii ñëpp suñu bëggee sentir ni ñi ngi liggéeyal bàyyi nañ ko liggéeyal si suñu bunt mooy suñu buntu xam-xam ki am xaalis na liggéeyal bàyyi ci buntu xaalis ki am xam-xam na liggéeyal bàyyi ci buntu xam ki nga xam ni doole la am liggéeyul waaye am na temps disponibilité na liggéeyal bàyyi ci buntam boobu noonu ñun bàyyi networking loolu rek loolu loolu loolu loolu la woote et grands ensembles yooyu moo ñuy permettre tey li bàyyi doon wax ni gis na ay taalibeem nekk buuri suuf ñu nekk ñi nga xam ne ñoom ñooy décider te nag dafa dafa jot aujourd'hui lépp loo xam ni tey pays bi wala Sénégal mi ngi koy mi ngi ko namm bëgg ko di ko wër solution bi jóge ci ci ci ci ñun ci taalibe Maolana Cheikh Ibrahim Niass yi donc suba bëggoon nañ ko def tënk yépp ci mais dañoo gis ni bëgg nañ kenn ku nekk am ci wàllam moo tax suba képp koo xam ne en tout cas wër nga bëgg def entrepreneuriat ñu ngi lay woo nga ñëw mais l'après-midi aussi ñu ngi woo ñëpp les ensembles cette fois-ci les associations maa ngi ñu ngi woo sax ki nga xam ne am na idée idée xalaat pour def dara ci mit na Baye na ñëw ci rencontre boobu parce que soo ñëwee di nga ne man bëgg naa def li ñu ne la kon organisation bii moo ci xaw a gën a taxaw wala yow créer lu bees ñu jàppale leen nga taxaw parce que li nga xalaat bi amagu fi te loolu yëpp ñu ngi koy def ci buntu jamiatu ansaaru diin tey dañu waroon taxawal événement bi mooy le mooy les leaders politiques de la Fayda ñi ngi koy wax sëñ bi nekkoon leen fi woon mais soixante plus de soixante personnes am na ay directeurs de société ay maire ñi ngi ci biir am na ay directeurs d' agence de l' yoo xam ñi ngi ci biir ñoom ñëpp ay taalibe Baay lañ ñun ñoo leen dajale Baay networking comme ni ñuy dajalee ensemble bu nekk tailleurs yi dinañ leen dajale ko parce que ñi bokk goj ñoo mën a ñoo mën a ànd donc tailleurs yi dinañ leen dajale professeurs yi am na commencé nañ benn base de données depuis depuis euh, maintenant un an boo xam ni lépp luy professeur ak ay maîtres ñi ngi koy ñi ngi koy dajale. donc politiciens yi nag moo dajoon moo ñu dese woon ñu dajale leen ñoom itam seen biir wan leen ni ñun parti bi ñu am moom mooy Mawlana Cheikh Ibrahim Niass bokk leen fu leen neex bokk leen parti bu leen neex su leen su leen su leen ñëwaatee si biir amatul parti bàyyi la war a jëmmal suñu drapeau moom mooy moom mooy fayda Tijaaniya donc ñoom ñu ngi waxtaan ci benn groupe bu am solo dinañ leen former ah, renforcer en capacité marketing politique naka ngay defee marketing politique naka ngay defee communication politique feem yu nekk yu ñu wax ni ci politique dafa war a am ñu fësal ke si génn ci télé rek ñun ñëpp kontaan na ak ah, kii de taalibe Baay la te nag dafa am jot nag ñoom ñëpp ñu fësal seen bopp ne ay taalibe Baay lañ ki nga xam ni dafa nekk ci état bi nekk ministre wala nekk directeur fësal sa bopp wane ni taalibe Baay nga du du du wanewu du wanewu mais soo wanee ni taalibe bàyyi nga daf ngay ñemeloo ñeneen ñi ndaxte comme Baay dafa ñu wax nañ yàlla na ko may mbooloom ña ca gën te yow ña gën nga bokk am na ñoo xam ne dañu lay roy di la gis ne ah kon kii ni mu mënee wax kii ni mu respecté weeg politique ni mu amee ëdëb ah kon ndekete taalibe Baay loon bett ma woon donc loolu c'est c'est juste pour pousser les a à wane que ni bàyyi loolu rek la wane donc moo tax ñu ngi leen di woo ne leen nañ ko nañ ko nañ ko fësal. donc kàddu yi mi ngi mi ngi gën gudd ñu ngi ciy jéggalu waaye dañoo mënul woon ñàkk ñu ñu ñu ñu jëlaat kàddu di remercier encore suñu équipe bi yëpp tout le Baye networking ñu gën a góor góorlu nag ndaxte liggéey bi des na des na lu bëri bëri waaye bu kenn gis boppam ñun lenn rek dañ ci te dañuy tàmbali rek mais am na ñeneen ñu koy yeggali moo tax dañ ci def rek li ñu mën donc ñu ngi leen di remercier bu baax euh, toogaay bi yàgg na am na sàmbeen yoo xam ne sànq ba ñu ngi may naan dañoo sonn ba ñu dem xewlu ji donc dinañ def pause diggoon nañ ah dijee nga wax leen après di des ci programme bi rek mais suba incha allah ñun à partir de dix heures onze heures dinañ tàmbali euh, suñu suñu programme entrepreneuriat dinañ samet waxaale gagnant bi nga xam ni concours entrepreneuriat bi def nañ ko am na am na ku gagné dinañ ko su siiwal suba parce que dañoo waxoon ni concours entrepreneuriat bi foog mu am njariñ ci pays bi ñoo étudier dossier ba pare ne kii est-ce que li muy li muy wax am na impact social am na impact économique am na impact environnemental est-ce que ci directement est-ce que tamit pays bi mën na ci njariñ loolu def nañ ko ba pare donc suba dinañ dinañ génne résultat yi donc loolu dañu lañu lañu fàtte woon wax depuis ce matin donc nañ ko préparé ak waa hackathon bi in incha allah wa axiru daawaana alhamdulilah rabbi salaamaaleykum